ñu dooree ko ak mbirum euh, oustaz Omar Sall ci waxtu wi Assane ñuy waxee ña nga ci tribunal bu dakaar euh, daal di saytu ay mbiram ca la mu waxoon mm, ci li nga xam ne moom mooy kuréel gi jëm ci mbirum tiijaan ak lu ni mel euh, daal ña nga fa fi mu toll di saytu mbiram. waaw am na solo am nga Sénégal moom ñëpp dañ koo bokk waaye it ñi fi nekk Sénégal ni ay jullit lañ. Mm-hmm. ginnaaw bañ wooree ay jullit it ñu am ñoo xamante ni seen pos-pos ñooña lañ ko jox. Mhm. te jàpp nañ ni ku ko laal rek jam nga leen si xol te kuñ jam si xol moom boo da ngay am problème. Mhm. te it kenn du fajal sa bopp réew mi réew mi yoon la. Mhm. ñu daal di dem si yoon pelante ki nga xamante ni moom moo laal seen pos-pos si li ñu wax. yoon war leen a àtte ba xam ndax it bu fekkee ni mbirum diine da ñoom seen biir mënuñu ko lijjanti ba dem si yoon ñu xool si loi bu dee. mbirum diine mi mi ngi ci loi bi su boobaa loi bi dana leen mën a àtte bu ko defee ku ne dem. Mhm. mais bu fekkee ne xool nañ ba xool mënuñu ko kii lu si man di am daal incha allah ñu ngi continuer di xaar. Mhm. di wax ni daal kon ñu ngi wax ñi ci des ñëpp ñi war a waxaat nañ ñu wax ci yonent bi. wala ñu wax ci alxuraan nañ bàyyi suñu mag ñii ak seen moomeel te wax ci yonent bi wala ñu ñàkk de war ma jëmale ko foofee te bañ koo jëmale sunu mag ñii ku ñàkk de war ma. Mhm. bëgg ci jàmm bu la neexee mën ngaa dem ci yonent bi bu la neexee mën ngaa dem ci alxuraan. ku ñàkk eh, war ma mën ngaa dem ci yonent wala ci alxuraan. waaw lu tax ñuy dem foofu. foofu mën na da lay jig kenn du la wax dara. yonent bi waaw. Ah. non alxuraan am na ko fi laan bërki dem gars dañoo dal ci kaw. dal ci kawam daal bu demee nag gën eh, kii la bu demoon si yoon sax mën na mën naa bañ a mujj xeen mais daal gis nga. son non Assane fii mën naa laa limal ñu bari ku ci mel ni mën naa la jox professeur Sankharé ba mu ko fi defee sax moom ñaar benn. Hmm. gars yi dañoo jëflanteeg moom ci jëflante yoo xam ne tabarkalla. bari na ñoo xam ne bu ñu laalee alxuraan wala ñu laal yonent bi. dañ lay génnee naa ñàkk gis nga ko fii ni nii ñun nee nañu groupe yi fi nekk yor ay kurus ak kilifa yi nekk yor ay kurus ak ñëpp daw wuti yonent bi gis nga foofu benn booy bu tuuti nee na leen yonent bi ngeen daw di wër moo may wër fii la toog bii. ab booy booy bu ndaw. mooy ki ki ma xanaan yaa ma ko joxoon. ma tey 15 ans wala kii si la yem. yonent bi day ferek da koy ferekante la wax. ndax dégg nga kenn taxawa ah? ndax dégg kenn taxaw. mais lu garaaw lay wax de. mu yonent da koy la. fréquenté hmm. nee na fii lay toog. mais ndax gis nga kenn ku ne ko baal yonent bi ngay këll këllee bu ko waxoon Cheikh Ibrahima Fall man maa koy wër ba gis ko lijjanti ko. yow mii waaw léegi yow lan moo tax lijjanti ko comme ci bi. kat ñëpp ko bokk. kenn moomu maam yonent bi moom dasaa am cër keneen am si cër keneen am si cër yonent bi lu ñëpp bokk la lu ñëpp bokk na ku la neex la nga sa am nga wax ko. yaa xam man. man taalibe sëñ Tuubaa mhm. mais su ma daje woon ak ku ñàkk teggin Maodo ma futteeku parce que dama jàpp ne Maodo sama kilifa. Ah, boo futteekoo mën ngaa dem ba àgg ñun la sa ba bu ñu arrangé ñun la yow ngay nga ne ñoo sunu mag la ñun. non pas suñu mag déedéet. sunu mag ñi la non non suñu mag de. maanaam Maodo mm. maanaam nitu réew mi la du nitu tu Tiwaawan wala Sénégal wala man de kenn ëpp wallaahi ñoo la si ëpp cër. man de kenn ëpp ma ci bu xam naa la ma li Limaamu amulaay Baay Ñas amul kenn benn taalibe bu taxaw yaa ma force lan mooy cër luy cër kuy joxe cër luy cër mooy dañ ne sunu mag ñaa ngi fii waaw kuy luy cër say waajur doon ay mag seen say waajur xool si mag ñooñu kenn ni kii moo ma doy wasiila la waaw dañ mooy fa ngay jàpp dama ne dañu kii moo ma doy waaw ngeen nga judd daal ni ñii doy samay waajur ñoo ma doy waaw mais tekkul keneen doyu la waaw ànd ànd nga ak ñëpp mais dafa am ñëpp ñi dafa am ku la si doy ñeen ak ñeen kee am na kee kee la doy ñeen kee la doy kenn ku nekk am nga cër ñëpp ko bokk mais kenn ku nekk nga am cër bu am ci moom. Hmm. moo tax te yonente bi nag kum neex ni kenn ëppalewu la ci ñëpp ko bokk kon nag lu la neex man nga ko wax. kon daal yonente waay for sànni ko. lu waay for sànni ko lu ne lañ koy wax. nii dangay gis fi ñaan yonent bi bëccëg ay ay eh, ba mu fóonee soxnaam bëccëg ba mu defee hmm. lii bëccëg ba mu defee nii ba mu wooree ba mu nàngam kooku ko ko waxoon sunu mag ñi danañ la dóor ba ngay bëgg a dee te am njàngale la am na ku taxaw fii sax daal di tudd dugg gu muy dugg ci peignoir moo kenn ci soxnaam di sangu. voilà am na ku ko def. loolu loolu am njàngale la mais ku ko joxoon exemple suñu mag ñi dutoo ko defati de en tout daal nañu waxtaane réew mi te gën a war maal yonent bi gën a war maal alxuraan gën suñu mag ñi. te te gën a fonk diine ji daal mais diine ji daal wax dëgg yàlla diine Sénégal ji war nañ see taxawaat bu baax a baax a baax a baax. d'accord diine Sénégal. waaw saytuwaat Sénégal diine Sénégal waaw. diine Sénégal am na. kaas yi day génnaat de. kaas yi moom xam nañ li ma leen wax dëgg la waaw ah, ñoom xam nañ ko bu baax a baax dinañ Sénégal mu àjjuma ak weeru koor la rek weeru koor 15 jours yu njëkk yi. <laughs> kaas yi daal xaw fu ñu toppee alaaji mm. Oustaz Omar Sall ma nga ca tribunal doonte ne fan yii passé ñëwoon nañ fi doon wax ne am na njekk gu ñuy ñaan mm. euh, ci ñenn ci ay nitu yoo xam ne ñu ngi ay nitu tariixa lañu. Mm. waaye daal yëg nañu mbir maa ngi gën di grave tey jile lay taxaw ca turbinal bu Dakar. waaw d' abord damay ñëw ci commentaire Assane bi moom Assane. du sama yaay lii la gëm sama bàpp lii la gëm. Mm-hmm. lii laa gëm. looloo fi am nag. waaw ah, bu dee lool moom moo tax. nit ñi di kii. Mm-hmm. bu doon lool la kon lislaam du taxaw. walaay walaay. parce que lislaam bi muy ñëw ka ko indi di yonent bi sallallahu alayhi wa am na fu ay waajuram nekkoon seeni maam am na fu ci lu nekkoon. mais ba mu ñëwee dafa indi yàlla da koo jox diine. Mm-hmm. ña nga xamante ni ñoo ko topp topp ñenn ña dañoo bàyyi la seeni maam ak seeni bàyyi kii woon. Mm-hmm. Ah, parce que booba ca Kaaba ga. ña nga doon jaamu ay xërëm. ah daa dëgg moom. waaw ah, non mais non yow da ne lu sa kii rek. lu ah, sa yaay nekk lu xam nga liy dëgg moom. <clears throat> mooy li yàlla bi mu ñu joxee am xel. Mm-hmm. ñuy xalaat moo tax nga war a di seetlul sa bopp seetantal. bu fekkee ne say wayjur dañoo juumoon nga ne leen da juum. jàpp naa ni li ngeen nekk du Ibrahim wan nañ ñu ko ak baayam mm-hmm. doon jaamu la nga xam ni mooy xërëm ya non si ñii wax waaw non loolu dafa valable ni mu valable ci kii maanaam mm-hmm. bu ñu lay nettali histoire bu ñu lay nettali histoire yonent yi pour yow nit di boroom xel nga jàng ci mm-hmm. nga xool settantal xool li nga xam ne ko parce que yàlla nee na balaa ngeen maa jaamu dangeen maa xam donc da war a gëstu ci xam kan mooy borom bi. Mm-hmm. nga épouser li nga xamante ni bi mooy religion bi. Mm-hmm. nga ne ah religion bii de man doy na ma alhamdulilah nag bi ma ko boobu bi ma fekkee samay. waaw wéyjur na ci. am waaw bi nga fekkee say way jur ne ci mhm. mais bu dee nag moom da nga ñëw rek gëmm sama yaay ji nekk sama papa ji la nekk rek ne naa noonu la yi lépp yooyu loolu fi ma juumee sax foofu alaaj nga baal ma c'est-à-dire man de tarixa yi sama papa man ma judd fekk sa yaay waaye njenn lañ da nekk njenn déedéet xaaral rek non non da ngay dégg déedéet tombé nekkul noonu la war demee du noonu la demee demee du noonu la demee noonu ñëw la demee fépp. noonu warut demee noonu. noonu la demee fépp. <laughs> Eh, man mii di wax ak yow. sama way jur kilifa la ca benn tarix ci biir réew mi. Hmm. waaw mais ci sunu kër am na ñoo xam ni murit lañ ñii tijaan. man am na sama famille. du dëgg maanaam ku ca ne. Hmm. am nga liberté. waaw dem fu la neex. waaw mais am na ci sunu kër ñii nekk nañu murit ñii nekk nañu ay. tijaan naa mi ngi teewaawoon gi waaw kon donc li ngay wax noonu waaw ah, moo ah, tax li ngay wax ah, noonu. tijaan la mais xaj na waaw li ngay wax noonu valable donc loolu bul di waxee bul jël rek jël mbir mi rek daal na yëf yi nii la déedéet. parce que tamit nit ñi nañuy dem. par exemple samay doom moom si li ma nekk déedéet man du man du loolu. man samay doom samay doom. samay doom tënk xam nga tey jii man. tey a génn jullit gi rek. xam nga yow li ngay wax noonu. mooy beneen erreur. Ah. buy ñëw maanaam tey jii di nga dem ba gis nit ñi ñu lay wax ne da ngay mel nga ko. sa doom di ñu koy ñaan si nga naan fu mu bokk man hmm. du ma may sama doom lii du ma may sama doom ki ma takk nii ab la ah ki ma takk nii ab tijaan la voilà ah, ah. yaa ngi noonu taalibe Sëriñ Moustapha <laughs> yaa ngi noonu yaa yow yaa ngi kii quoi xam man tey sama doom li ma li ma li ma mën rek mooy ne ah man de sama doom jullit laa koy may. waaw moo xam nag tarixa bu mu mën a bokk. Ah. wallaay yaa ngi dégg. na bañ a génn jullit gi rek na bañ a génn jullit gi na nekk na nekk. jullit rek bu nekkee jullit rek loolu laay doxal. loolu kay maa waaye aw ma intermédiaire ci <laughs> aw ma problème ci sama doom. Assane <laughs> déglul. sëy wax maa ngi koy doxal. <laughs> ñëwal ci commentaire ma aw ma ci loolu problème quoi. Ah. parce que man jàpp naa ni doom bu jigéen moom la jëkkëram doon. Ah, euh, moom lay dooni ko mm-hmm. comprendre man bon yooyu mooy yi nga xamante ne bi moom la ñuy faral di jéggulu dafa am solo. jéggulu waaw torop sax doomu aadama bi bu taxawee jéggulu hmm. mais njariñu jéggulu mi ngi am solo ci parce que boo jéggalee. Hmm. ki nga mën a jéggal jéggal ko maanaam ak yëkkatiku la ci ki jéggale. Hmm. mais bu fekkee ne nit daf la jéggulu jéggaloo ko. ak suufee la ci ki bañ jéggale maanaam yëkkatiku la ci ki jéggulu woon mhm. waaye ki bañ a jéggale moom euh, ak suufe lay doon ci moom mhm. tey jii Assane su ma la tooñoon mhm. ma ne la Assane baal ma boo ma baalut maanaam man moom sama jaan wàcc na waaw yow moom yow yaa dese la nga xam ne mooy mbir mi nit ñi kenn du ma yedd parce que dinañ ne ah diw de tooñ na waaye jéggulu na donc nag man moo tax ma ne kaa mbirum Omar Sall warutoon a yegg si fii di ma que moom taxaw na defaat vidéo ne li mu waxoon la ko nit ñi yóbbee woon mu ne waxut loolu. Mm-hmm. loolu te def na ko ci pénc mi. Mm-hmm. donc wax dëgg fa yàlla wartoon a yegsi fii mu yegsi. Mm-hmm. parce que bu yegsee fii mu yegsi rek maanaam da ngay jàpp ni yaa ngi tuutal nit ki mais nit ki moom euh, mënatoo koo tuutal. parce que li ko doon tuutal di la yëkkati mooy moom mi waxoon nga wëlbatiku ne man de bàyyi naa lépp. loolu sag yëkkatiku la yaa ngi dégg bu ëllëgee bu waxaatee nit ñi dañ ah moom de barki dee moo fi waxoon lii di jéggul jéggul waaw tey jii mi ngi ñëwaat di wax di dexalee nii kii na bàyyi yi muy def maanaam bu boobaa nit ñi dañuy dal ci kawam hmm. mais fi mu toll nii moom wax dëgg fa yàlla fii mu dem nii parce que xam nga mbirum diine moo doy waar son yi hmm. bu fekkee ne nit ki dafa wax ci diine ne moom ci masala la wax hmm. juge yi ñu leen yóbbu Euh, at bu ñu demee du ñu loolu. duñu ñu mm-hmm. àtte kii maanaam bu waram xam-xam waxee nañ ko tontu ci xam-xam. Mm-hmm. pour man loolu mooy bi gën a. ñoo gars yi moom tontu nañ ko ci bi gën a dal waaw nañ tontu ci xam-xam doy na. Mm-hmm. comprendre nga foofu rek doy na bu boobaa nit ñi dinañ dégg dinañ xam ne ah bi mu waxee de tontu nañ ko mais tey jii pareen saay day am foo foo xam ne fa lañ dëgg dañ naan ah ñun de bi ma waxee ci xam-xam. Hmm. tontuwuñ ma ci xam-xam waaye dañ maa yóbbu ci yoon te yooyu mooy yi nga xamante ni bi man pour man jaru ko. Umar wax na dara nit ñi ne ñii la wax wëlbatiku ne ne man waxuma ñii wax dëgg fa yàlla doy na kooku jégglu na bu fekkee ne la nga jàppoo nit moom nee na moom du lii la doon wax d'accord voilà tontu ca xam-xam gi moom alaaji weesuwul waaw bu ñu nee yonent bi daawul def nangam. waaw comme lal mbalaanu wasi euh, lal am mbalaan tiim ko. Mm-hmm. yonent bi moom bari na lu mu deful woon te ñoo ngi koy def. whatsapp bii yonent mus ko yor. te Oustaz Omar Sall am na whatsapp. yonent musul am téléphone. Mm-hmm. te Oustaz Omar Sall yor na téléphone. Mm-hmm. kon loolu rek maanaam tontu bu teer la ci xam-xam. ci këni lii nga naan yonent bi defu ko woon. yow yaa ngi def lu yonent bi deful woon. oto yii yonent bi daawu ko war. te ñu ngi koy kon loolu defe na yoo xamante ni boo tontoo rek après bon jeex na quoi.